programme bi nit ñi liggéey nañu ci ay thématiques. boo seetee mat na 36 thématiques. yoo xam ne liggéey nañ ci mu commencé ci agriculture mooy mbay mi. Mhm. élevage càmm gi feche parce que ñun yooyu moo ñu gën a yitteel ci lépp. loolu mooy base réew ak base économique. Mhm. ensuite ñu andi environnement cadre de vie travail et emploi réforme de l' enseignement supérieur, formation professionnelle, recherche scientifique et technologique, affaires étrangères et panafricanisme, décentralisation et réforme territoriale, habitat, aménagement du territoire, culture, tourisme, artisanat, défense et sécurité, sport, santé, protection sociale, commerce, entrepreneuriat et PME, numérique, éducation nationale, industrie, mines et carrières, justice, transport infrastructure patriotisme et citoyenneté énergie hydraulique économie finance publique et budget économie sociale et solidaire muy 36 thématiques yoo xam ne liggéey nañ ci mu joxe benn document boo xam ne fi mu toll nii tembe 136 pages la. waaye dinañ ko liggéey dina am version allégée bi dina am lépp. ba suñ koy delloo Sénégalais mu doon loo xam ne lu comestible la lu neex luy lu neex a jàng la. ñu yokk si nag ay gis yoo xam ne mu ngi ci biir document parce que dafa am enjeu yoo xam ne mooy enjeu wu tey mooy enjeu wu àdduna bi te suñu réew yi xaw cee néew xalaat ak projection trop trop trop moo tax àdduna bi yëpp largué donc loolu ci li ñuy liggéey la ñu ngi ci avancé bu baax a baax a baax di wax nit ñi bu soobee yàlla. Hmm. bu ñu génnee suñu programme. Hmm. ku ko liir gëm naa ni dina jafe nga liir beneen programme programme bu fees sa bët ah. parce que du programme sax Ousmane Sonko waaye ñu ci liggéey ñoo bëri te ku nekk sa xam-xam màcc ci dara ñu liggéey ci liggéey bu am solo boo xam ne ay weeri weeri weeri ci gannaaw ñu nga ci da ci liggéey ak ay échéances ñu fixé woon en cours ay rendu euh, équipe professeur Daouda Ngom waaw moom kap ci liggéey boo xam ne macha allah ñu leen ci félicité bu baax.